voilà donc bus bi euh, mooy euh, bus bi nga xam ni moom moo def accident bu métti bi ngeen gis ko nii mu jugee département bu Podor Thioubé euh, Laawa foofu 22 nag ñoo ci ñàkk seen bakkan sur place beneen 23e bi mi ngi ñàkkee bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir mbay mu nekk accident bu méttee méttee métti ngeen gis ko nii fii ci Euh, boo génnee Louga rek jëm Saint-Louis foofu voilà mi ngi noonu bus bii la bus bii moo def accident bi 23 nag ñoo ci ñàkk seen bakkan vingt 22 ñoo ci dee sur le coup vingt e bi hôpital Amadou saxiir mbay la daal di ñàkkee li nga xamante ni moom mooy bakkanam euh, bari na tamit ay blessé mu nekk euh, accident bu metti biñ fi ñëwee rek am na ci kenn koo xamante ni bokk na ci biñ ko laajee Euh, nee nañu moom dafa jekk si yàgg rek gis chauffeur bi di dawal oto bi dem gauche droite gauche droite ba daal di xalanku mu nekk accident boo xam ni métti na torop torop torop torop foo ko nattu rek weesu na fa accident bu métti la <clears throat> ngeen gis ni 23 ñoo ci ñàkk seen bakkan bëri na aussi ay ay ay ay ay ay blessé 23 yi nag ki ñu jox xibaar mooy docteur bi moom moo ñu ko xamal léegi donc mi ngi noonu di dem hôpital ngir xoolaat situation bi mu nekk hôpital euh, mu mu mu nekk accident bu metti autorité yi euh, teel nañ ñëw gouverneur teel na ñëw préfet teel na ñëw sapeur aussi gis nañu vraiment euh, taxaw nañ ci liggéey am liggéey bu am solo gendarmerie aussi gis nañ seen taxawaay gis nañu aussi population bi ñoom it vraiment ñëw jàpp ci mu nekkoon na accident boo xam ni métti na lool foo ko nattu rek weesu na fa euh, donc <coughs> loolu moo fi xew euh, ñi leen di ñaanal ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xare leen àjjana tàbbi leen ci àjjana yi gën a kawe bus bi mi ngi noonu <coughs> gis ngeen ko bus bi moo def accident bi 23 <clears throat> ñoo ci ñàkk seen bakkan bari na nag ay blessé jamono gii ñuy wax ak yéen bari nay blessé <clears throat> bari nay blessé trop <clears throat> donc bari na ay blessé sapeur nag fii dafa bari woon dret gis ngeen nettoyé nañ ko lépp ba mu ba mu ba mu set donc bis bii la moo def accident bi ngeen gis ko nii mu nekk lu metti mu nekk accident boo xam ni metti na trop donc yéen a ngi en direct fii ci Jacob Post mu nekk xibaar boo xam ni moom leen leen xëyee di xibaar bu tiis xibaar bu metti xibaar boo xam ni foo ko <coughs> natt ci metti rek foo ko natt rek weesu na fa <coughs> donc voilà loolu moo fi xew <coughs> donc foo ko natt rek weesu na fa metti na lool metti na trop metti na trop d'accord <coughs> donc loolu moo fi xewoon <coughs> eh,